À l'établissement Baye Frères, votre confort à l'aide d'une production et distribution locale de qualité est notre unique priorité. À cet effet, nous vous proposons ce qui se fait de mieux en matière de confection de double vitrage, qui est un procédé qui permet une totale isolation acoustique et thermique. Plus de nuisances sonores, plus de transfert de chaleur et moins de dépenses d'énergie. L'établissement Baye Frères, c'est également un équipement de dernière technologie en ce qui concerne les finitions de verre, polissage prestige, biseautage 45 degrés, découpe sur gabarit. À l'établissement Baye Frères, tout le savoir-faire et l'expertise locale sont mis à la disposition pour une parfaite prise en charge de vos besoins et une totale satisfaction de notre clientèle. Adresse HLM 1, rue 13, avenue Cheikh Amadou Bamba, Dakar. Téléphone 864 75 15. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waa Tawfekh Production ñu ngi leen di nuyu baax di leen siyaar ñu ngi ànd ak eh, Cheikh Ibrahima Fall Sawru di kenn koo xam ne day eh, conférencier la di waxtaan ci yoonu murit di waxtaan ci njàngaleem Serigne Touba eh, ci lislaam di borom xam-xam ñu jàkkaarloo ak moom fii daje ak moom fii ci Masalikul Jinaan Cheikh Ibrahim Masalikul Jinaan fii ñu dajee ak yow tay dafa tombé ak bis bi nga xam ne moom la ñu jagleel soxna jaariyatullahi Mariama Bousso ana naka nga ciy duggee. auzu billahi min ashaytaan rajim bismillahi rahmani rahim. alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin euh, noo ngi lay nuyu baax yaaram di nuyu mboolem ñi seetaan ci biir réew ak bitim réew di leen siyaara di leen ndokkeel ci bis bu mag bu tedd bu sell bii euh, comme ni nga ko waxee yaram ñoo ngi fii ci Masaalikul naan tey jii di ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru tubaab di bis bi nga xamante ni bi moom lañuy ñuy jagleel soxna su màgg su tedd su sell sax soxna jaariyatullahi Mariama buso di soxna Mariama buso ñu gën koo xam te soxna jaariyatullahi soxna jaaratullahi ah, dëkkaale bi mu dëkkaale woon ak boromam tabaaraka wa taala moo tax ñu tuddee ko jaaratullahi bu ñu bëggee wax kan mooy soxna jaara dañu naan ah, way juróom mooy soxna Asta Waalo soxna Asta Waalo mi ngi ganee jamono moom soxna Jaaratullaahi Mariama Bousso dëkk bu ñaan Golléré ci atum 1833 foofee la ganee jamono soxna Asta mooy way juróom ku ñuy wax sëriñ Bousso sëriñ Mouhamadou Bousso mooy way juróom nga xam ne Mouhamad Mouhamad moomee Mouhamad mooy waajuram Mouhamad moomee Mouhamad mooy waajuram Mouhamad moomee moom la ñu gën a xam ci Matabara Matabara ibnu Aliyu nga xam ne boo toppee silsila bi ñëpp di ay di ay surofaaw di ay shérif wàllum askanam ci wàllum juróom wu jigéen nit kataalika nga xam ne boo xoolee eh, boo xoolee soxna Mariama Buso ñu gën ko xam ci soxna Jaaretullaahi wàllum waajuram wu jigéen Euh, ci ci waa Mbàkke la bokk wàllu way juróom wàllu wàllu way juróom bu góor bokk ci waa Mbusoo bi moo tax ñoom ñëpp ay surafaaw lañ wax naa la ni silsila bi boo ko dee lim euh, da nga da nga dem ba ca euh, ba ca Seydina Hasan dem ba ca Seydatuna Fatima bintu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam waaw kon yaakaar naa boo dégloo bu baax a baax ni nga xam ne moom la sëriñ bi duggee ci waxtaan wi da nga gis ne mu ngi tàmbalee junju Euh, euh, euh, soxna jaaritullahi Mariama Bousso doon gi nga xam ne daf ko doon ab sharif waaye na xam naa ngir ak gàttaay waxtu wi ñu tënk maanaam tey masalikul jinaan ana ban ban ban ban jàngan nga ci mën a am ci lislaam fii ci réew mi ci Sénégal doog a ci Afrique doog génn tasaaroo fépp ci bitim jinaan yow ana nak nga koy jàngatee. lislaam moo ko lislaam moo amati ndam masalikul jinaan dafa bokkoon ci naal yi nga xam ni Cheikhul Khadim radiyallahu anhu naaloon na ko waxoon naa keroog bi ñuy waxtaanee Serigne Mouhamadou Moustapha ma ni leen de Masaalikul Jinaan ci baatin Serigne Mouhamadou Moustapha moo ko fondement ndax nekk na jëmm joo xam ne bu ésegoon lépp eseg Masaalikul Jinaan bu bu Cheikh Mouhamadou Moustapha bu ésegoon lépp eseg ba fa bokk ci naal yi nga xam ne Serigne bi naaloon na ko waaye bokk ci fay yi nga xam ne suñu borom tabaaraka wa taala moo ko fayee Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ndax dafa liggéeyal yàlla ba yàlla gërëm ko Serigne Touba wax na ni jaamoo na yàlla fu ko kenn jaamoowut jaamoo ko nu ko kenn jaamoowut moo tax mu may ma lu mayut kenn raditu an nii ma raditu an nee na suñu borom tabaaraka wa gërëm na ma ma gërëm ko nee naa ko jërëjëf nu ma jërëjëf waaye liggéeyal yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam euh, ba yàlla suñu borom tabaaraka wa taala fayee ko masalikul jinaan jërëjëf jërëjëf jërëjëf jasakallahu xayran xam naa ne waxtu wi moo xat waaye kon danañ gën a mën a yaatal bu baax a baax dégg nga ni mu waxee nee na Masalikul Jinaan Serigne Modou moom mooy ki xam ne moo ko fondement ndax bu fekkoon ne moom dafa échec yoonu murid gépp échec kon yàlla nañ ko suñu borom fayal wax na it ne Serigne Touba gërëm na boromam waaye boromam gërëm na ko ah radiya anni radiya yu bari yoo xam ne Serigne bi wax na ko yoo xam ne boromam lay jublu ne gërëm na ko moom gërëm na ko kon jazakallahu xayral jaza yàlla na suñu borom yokk xam-xam bi mboolem ñi ànd ak Tawfekh ngi leen di sant baax di leen gërëm wa rahmatuhu wa barakaatu. ngir gën a clients yi ak dab seen bànneex C3S gën na yaatal toogaayam ci ndakaaru ak ci biir réew mi ndax c 3 am na ca Yaraax Soprim Pikine Kër Massar Thiès Louga Saint-Louis Kaolack Ziguinchor mën ngeen a jokkoo ak ñun ci 33 859 70 70 wala ci sunu site internet www.c3s.sn